njëkk yéenekaay bi di ñu xamal ni jamono ji nag ci réewum Sénégal jot na sëkk ñu koy waxtaane naka noonu itam wax dëgg yàlla ndax mbir maa ngi bëgg a wéy di ëppi loxo la ko waral moo di jëye yi nga xam ni mi ngi am ci yoon di kaw tali yi mu di jàpp ni sax ci jikko yi la ak lu mu ci doon daal mbir mi jamono ji mi ngi wéy di gën di jéggi dayo Dakar Presse dikk nañu xibaar beneen accident bu amati mi am fii ci diwaanu Dakar ci foire bi rek mu di tata minibus boobu nga xam ne moo daal saaraan fii ci foire ba tax euh, mu daal euh, jur ñetti doomi aadama ñàkk seen bakkan mu di am démb ci ngoon gi ci euh, foire bi fii la amee yéenekaay bi di Dakar Presse moo ñu ko xamal ba tey yéenekaay bi di kak ñun di ñoo xamal ne mbëkk mi di wala barsa wala ko na genn gaal goo xam ne bàyyikoo na foofu la ca bañ ca barñi lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay doomi aadama ña ca woon waaye nag gaal googee la mu bëggoon moo di mbëkki mujjut antu la ko waral moo di bi moo ko daal di teg loxo mbokk yi ba tey ndombal euh, doxale naka lañ ko fas yéene séddale lépp yéenekaay bi dikk na ci di ko faram fàcce benn par benn ba tey bari benn yëglekaay la mu xam ne ni ki mu di l'observateur la mu bindoon démb daan ne ki xam si ni moo di euh, Ousmane Sonko la mu waxoon daal dana fay daal di bor yi nga xam si ni moo di opérateur économique yi te loolee defagu ko ba tax yéenekaay bi jàpp ne euh, mu joxe woon respecté ko maanaam la mu joxe woon ci ab app daal di jëfewu ko yéenekaay bi nag dikk di ñu xamal ki xam si ni moo di Mabouba Diagne moom la ñu dénk mbay mi dikk na di weddi loolee daal nañu ko bindee ca dëgg-dëgg wérul l'observateur dikk na

liggéey ñu leen di fay loolee dañoo aw yoonu dakkal ko yéenekaay bi di l'Observateur moo ñu ko xamal ba tey beneen ne niki jii la muy ko la muy xam ne la ko ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bi gis-gis ba mu ci lépp ma koy leeral naka itam Idrissa Ndindi moom itam euh, Ndindi euh, Idrissa Diandi moom mu nekk ca UCAD ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bi ko gën a leeral naka itam Alla Dieng kenn ku nekk indi na ci ay kàddu yooyu le mbir ba tey turbine dikk ak ñun dañoo ba àgg ci lool wala bokk fa mu toll moo métti euh, def ay jéego maanaam wàññi li nga xam si ni moo di dawaan bi di njëgi courant bi bi ñoom nañu def mooy dañuy wàññi mburu mi noonu la ko xamle sama xel nag da ca gën a nekk mooy wàññi rek moo tax yokk moom dama bëgg di ko faral di wax lu bare bari Walf Quotidien dikk ak ñun di ñu xamal ni lu jëm ci euh, njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye xam se ne joxe woon na ko ne bu ñu àggee ba fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2024 di leen teg ñu xamal nag moo di app boobee léeg ñu àgg ca buñ ca àggee dinañ xam ndax njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci lañ mën a gën a càmbar ay mbiram ndax aw na yoonu jëfe la mu waxoon waaw wala déet yéen kaay bi tëkk ñun dañu xamal critique moom itam euh, yéen bi lam ñu xamal moo di critique ci lu jëm ci euh, gouvernement ba fi romboon moo di nga xam bi lam ñu xamal moo di jamono ji ñi nga xam si ñoo di kujje gi kenn déglu ñu wax maanaam ban taxawaay ñu am jamono ji dafa mel ni ak kujje maanaam opposition amul ci réewum Sénégal nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye ña ngay doxal ca nam leen neexe yéen bi di Walf yéenekaay bi di enquête dikk ak ñun di ñoo xamante jamono ji nag dafa mel ni kuréel politique yu mag yëpp ci li ñu nekk jamono ji di ci dox mooy dajawaat booloo waat naka itam ñi fas yéene booloo moo di libéraux yi yéenekaay bi ma ñu xamal daan ni libéraux yi euh, bi ñeneen libéraux yi euh, la ñu toll ci ay ay mbootaay suñu booloo dina nekk ñoo xam danañ am doole ba àgg ci loolu ndax lu toll ci daanaka ku ci mel ne APR PDS bokk gis-gis naka itam LDR euh, ak tamit yeesal ak ak UCS ñoom ñëpp nekk ay kuréel yoo xam ne wax dëgg yàlla ràññeeku nañ lool ci wàllum politique bi tey nekk kuréel yu am doole suñu gënee booloo mu nekk libéraux yi dina nekk loo xam ne dina am solo lool noonu lañ nekk moo di fexe xool naka lañ mën a def ba daal di gën a booloowaat booloo seenu say ba tey yéenekaay bi di libération dikk duñu xamal mbir ya ba tey ci jëm ci wàllum rapport ak la nga xam si ni mooy feeñ ah, doxalinu moo fa nekk di liggéey ñoom lu ñu daan fay ci ay weer dañ daan daan xaaj jox ko ki xam si ni moo di maire ba fa nekk yéenekaay bi nekk moom la mu xam le moo di moom lañ joxoñ baaraamu tuuma moom nag nee mbir mi tàmbaliwul ca ak ayam fi la ko fekk nag nekk na loo xam si ne wax dëgg yàlla jaaduwul ca jaarul ci aw yoon lépp yéenekaay baa ngi ci dikk di ko gën a faram ba tey yéenekaay bi di ko ñun dañu xamal ni xewul rek foofu la ca Sam Notaire noonu xamal ni feeñal nañ fa mbir yu yéeme yéeme du euh, yu di ay mag yi naka noonu itam xamal ni foofa nag moom mairie ba moom moo di ki nga xam yoor yoor bi yéenekaay bi lu jëm ci la saytu ba tënk ko loolu la wax rapport ci li nga xam se ni moom lañu moo soxal euh, doxalinu moomeelu askan askan wi yéen kaay nag rapport bu Cour des comptes ñeel atum 2012 jàpp 2016 mbir ma fa xew nag jëm ci na nga xam si moom euh, nag jamono ji dañ ko duut baaraam la ko waral moo di mbir yu bare ba daan na jaar ci anam bu jaar yoon ni ko Cour des comptes waxee naka itam jëm ci wàllum euh, jafaan di carburant ci jëm ci gasoil noonu la ko yéen kaay bi xam le yéen kaab lañ ñoo xamal moo di ci juróomi at lu toll ci Euh, lu toll ci euh, ñetti téeméeri junni ci wàllum litre euh, gasoil génne nañ ko ngir mu loolee nag daal di méngoog lu toll ci ñaar téeméeri million ak ñaar fukk ak benn ci ay million loo xam si ne génne nañ ko mu méngoog loolee ci ay gasoil moo xam ni loolu rek loolu lañ wax ne jëm na ci wàllum gasoil yéen ikaat ñu xamal ne boo xoolee lu toll ci atum nag lu tollu ci ñaari junni wala bokk lu tollu ci ñaari ñett bu toll ci ñaar téeméeri million ak ñaar wala boog ñaar fukki million ak ñaar loolee génn nañ ko jëm ci wàllum ak gaz loolee ma nga méngoo ak ñaar fukk ak juróom ci ay litres ci benn oto dong la dem na benn daamar 2012 nag lañ ca jël moo di toll na ci fanweeri million ak juróom benn fanweeri million ak juróom benn nag loolee ma nga méngoog ak euh, ma nga méngoog ak fukki junni ak juróom-ñett jëm ci wàllum euh, litre yi euh, gasoil ci benn pick-up rek ko daal def ak yeneen ak yeneen noonu la ko yéenekaay ba njàmbatum yeneen ci ay quartier la ñu ko ñun di xamal ni lu jëm ci ñiy dox ci mbedd di ay taalibeek yeneen yu ko nuru jafe-jafe yeneen jànkonteel yéenekaay bi dañu xamal nag moo di ba tey ji ndaw ñaa ngi wéy di gën di nekk ci mbedd mi ana naka lañ mën a def ba mën ko saafara yéen bi nag lam xamal moo di nañu ko dooree nag ca reen ba daal koy saafara foofee lépp noonu la xamal ni lu jëm ci a euh, ay plan euh, d'urbanisme maanaam wàllum taax jaaxal ak yeneen yu ko nuru fan ca toll naka noonu itam ak mbir yu bare bari yoo xam ne feeñal na ko ci cité Atepa lépp mi euh, la mu xam a leeral moo di lu jëm ci yokk salaire yi nga xam defoon nañ ko ci ministre yi nga xam ne di jëwriñ yu weesu woon yéenekaay bi lam xamal moo di njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye dakkal na mbooleem loolu lépp lépp tegaat na ko ci aw yoon kenn ku nekk da war a jot ci payoor ci anam bu jaar yoon rek Euh, nga koy daal di jotee Sud Quotidien loo xam si ni xibaar la mu ñeel BRT bi nga xam ba mu taxawee yàgg na maam bañ koy saytu xool naka lañ def la ñu xamal moo ne dafa mel ni saytu ba noppi la war a tàmbalee daw yéenekaay bi moo ñu ko xamal ba tey beneen yéenekaay ak la moo xam ne niki tey ji mu di réew mi quotidien yéenekaay bi dañu xamal ni kii di Amadou Ba dellusiwaat na ci réewum Sénégal Amadou Ba ginnaaw bi mu lajjee ci jongante ñu weesu woon Ba nekkoon bitim réew yéenekaay bi dañu xamal moo di Amadou Ba nag ginnaaw ba mu dellu see daal dañ koy teeru teeru bu mucc ayib foofile ca euh, naaw bi nekk ca naaw bu ñu duppee Blaise Diagne ñu koy wax aéroport international Blaise Diagne yéenekaay moo ñu ko xamal Ba laaj na bopp yéenekaay moo ko samp na koy tam teg ci di ko gën a faram-fàcce Mabouba Diagne ay kàddoo mi ngi ci biir yéenekaay bi wala bokk la mu laaj moo di naka lañ mën a def ba jamono ji ba lu jëm ci wàllum Euh, mbay meeg semence beeg yëpp ak tamit lu jëm ci fay ñi nga xam se ñoo di opérateurs yi lan moo tax mu taxawadi laaj la bopp yéenekaay bee ko samp lan moo tax fay euh, fay gi wax dëgg-dëgg amagul laaj la bopp yéenekaay bii di euh, l'évidence moo ko samp ba tey yéenekaay bi ko ñu xamal a amoon na ko ci jëm ci wàllum tànneef ak naka na laneen lu ko nuru ak taxawaay bi nga xam se amoon na ko ci kanamu Amadou Ba Amadou Ba moomu sax moo nekk ci xët bu njëkk direct news jongante ñu weesoon waaye jamono ji nag la ñëpp wax moo di moo nekk nag jëwriñu kujje gi maanaam moo na nag ginnaaw ba ma amee moo di Amadou Ba bu a taxawee dëggal boppam mën naa taxaw jàkkaarloog nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko naka itam mën naa dem ba àgg ci wuutu leen waaye nag président Macky Sall moom euh, gannaaw jamono ji li mu bëgg moo di boole mbooleem koo xam ne mi ngi ci biir APR waaye soo mutuwul ñu baree bari danañ daal di génn ndax daneen mer euh, xool yoon waneen yoon wu nu jëm euh, révélation yéene kaay dikk ak ñun du ñu xamal lu jëm ci màggaluk Touba ak wàccaay wan waral jamono ji wan amal jamono ji waxtaane ko na la ma daan taa ana naka lañ mën a def a bare bari saafaraw màggal Tuuba ñu koy xaar ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août atum 2024 noonu la ko yéene kaay bi le Odia moo ci topp des teewu ndes la nuyoo ziyaar la accident yi yàgg nga ko jàmbat ba tey nag awgul yoon a dakk ba tey kenn mënut toog wax lan moo ko waral maa ngi bu baax Abdoulaye Naar di euh, ziare mboolem ñi ñuy déglu ñu ñuy seetaan ak ñi ñuy teewlu euh, di nuyu suñu gan Ibrahima Khalil euh, Diène ah di nuyu également euh,